dama yéex a am combat barke Sëñ Fallou kuy Guiro Seras du pour moom nag yaa essayé bëtam nekkul ñu Guiro Seras yàlla xam na ko le 16 tey décembre maa xam moom. da ngaa daw maa koy moom. da ngaa daw daw woon rek mais comme jot na dañuy jëflante incha allah. du di boole yi dootul mais ah, mosuma dóor mbir mu daanu. musuma dóor mbër daanu. moom mooy soqeeku. ma wane sama loxo. bilaay waaye tuute bool yi dootori mais. loolu mooy lan. jege git am après à chiffre lay nekk. di sant waa Espagne ñëpp sama gars yi nekk foofu waa Italie. maa ngi bëgg ñoom ñëpp. yéen maa yoon yi yàggam di ma gaynde. du yéen ñaar da ngeen a bokk sax sëriñ. ndax li mu yor moom nga du man lay toppandoo rek. man li waa Réfane ñoo ma waa Bawol. moom Masam ma li nga basam baaxul non xaw na xaw baaxul man yor laa xam xam na ne turam original sax ko jéem a xam te ci kàddu la la see dama koy duma daan ko kilo seeraat bu dëgg la moom dama koy dóor mu daanu. ci kilo. lu nee naa ko kilo seeraat ñëw na nee na moom musul dóor mbër mu daanu mais ci yow lay soqee ko. ça va nag si pet waa moo tax ah. waaw moo tax du waxam sax. marge ndax wax na ko so waaw moo xam nee na béjjënu kooba bi mu mooy original yow sa bii kenn joxu la waaw loolu dëgg la bu ko neexee dama kaa for mbëbës loolu yëpp dëgg la na ànd ak ay mboqam xam ne damay ànd samay mboq lépp lu laabul laaj dañ koy def incha allahu rabbi te yàggatul weer a des tey le seize la ñuy bërewaat fii ak ñeenti dimanche la rek jaratul wax ji di bëri nee na da ngaa jàpp ni dalaa ragaloon te boobu àpp bi moo jotagul woon àpp bi jot na dina la dóor ñu daan daan mën na ko juróom sañul lool. mais bàyyi si yàlla yóbbu ak jàmm ay abu jot na wala jotul déggoo ma de si moom lay doon yàqoo man làmb du yàqu si man. léegi nag yaay wër turam mais moom soxlawu sax xam sa tur. loolu du problème. làmb kan nu mu tudd. góor gu ñaaw. góor gu ñaaw. wax ko bëri wax kii. tës laa bu ko yóbbu ñu amet ay dara jël ko foofu. dafa dof si pet nag. Ah.